ñu nas ko lii la ñu wéyale waaye pour def ko il fallait ñu dem ut ñu leen koy defal moo tax suñu su ma déggee ñu ne tànn nañu seeni juge ba noppi du mën a déet ndax li jiitu moo tax ñu war koo xam naka la ñu tànnee Omar Maham Diallo bi nga xam ne mooy juge d'instruction benn ñu ngi ko tànn ci wàllu mbokkoo parce que wax su jotee dañ koy wax nañu bàyyi raay wax ji dañ ko tànn ci wàllu mbokkoo ndax moom li mu séq ak ñu bëri ci gouvernement bi ñu mel ni ñoom Abdoulaye Daouda Diallo ak ñeneen ak ñeneen ñun xam nañ ko ñu tànn ko ci wàllu mbokkoo ak wàllu waaso loolu méthode Macky la waaye lim bëgg du am mooy du mus a dox ba féewale euh, xeet yi am Sénégal ak ethnie yu am Sénégal ndax fii ñëpp bokk ndey ak baay waaye loolu mooy premier critère bi ñu wëlbati tànn ko ci kaw moom bi mbir mi ne kët ne jonn page Facebook am bi mu yor daf cee dugaloon benn texte bu mu bu mu publier bu mu partagé texte boobu ki ko bind dafa ne woon Ousmane sonk dañ ko war a yóbbu kaso moo def lii moo def laa moo def lii teen xam ngeen ni kuy juge dañ laa aaye ngay génn yu mel noonu di ko publier ndax juge dafa am benn obligation bu mu am obligation de réserve dossier bu nekk en cours tribunal même su su dee yow yow yaay yor dossier boobu da kee war a maandu kon moom loolu rek disqualifié na ko loolu rek waroon na tax mënuñu koo jox dossier bi waaye loolu moo tax ñu dem jëli ko Ziguinchor parce que il leur ñu am koo xam ne lañu bëgg dina ko def ñu tànn ko ci anam yooyu daat koy jël waajal ko nag ndax def nañu huit mois balaa ñu koy jël bu ñu ko jëlee toogaat na lu mat sept mois laalu dossier bi. lu nag dégg nañ ko ci te weddiwuma ci dara ndax keroog bi ma duggee ci bureau fekk ñu sotti saafara ci suufu bureau bi yépp mu dem ut ay bandaas ñu bandal ko loxo bi juge bu ah, bu nar jàmm du def loolu lan moo jar loolu yépp ci ju dossier boo xam ne instruction kese la ba ñu génnee laa ne samay avocat kii def na ordonnance bu yàgg ba teg li muy def nii yépp day day mettre la forme rek mooy niroo niroo rek waaye jël na ordonnance am ba pare man noonu laa gëmoon te histoire war na ko kooku lañu jël jox ko dossier bi ne ko fexeel yaa xam nooy def waaye li ñu bëgg ci yow mooy fexeel rek ba renvoyer à un procès mu dellu ci li ma waxoon ci message Dior Diagne bi lan moo la firndeel ni Omar Maham Diallo deful instruction ci dossier bi lan moo firndeel ni moom li ma tuddee léegi ni moom dama jàpp ni magistrat Macky Sall la politicien la boo xam ne mun nañ ko jox carte APR te dafa yokk ci liste ñi nga xam ne dañoo bokk ci complot pour écarté un candidat à une élection présidentielle te duñ ko ko musa baal nag parce que responsabilité dafa am solo faut que mu xam ni li muy def dafa am responsabilité naka la ñu mun a joxee juge d'instruction ab dossier dossier bi ki nga xam ne moom moo accusé ki nga xam ne moo jiñaate ba léegi andiwul benn preuve benn benn preuve andiwuñu ko lañ ne am nañu ay vidéo am nañu lii am nañu la su ñu toogee ci kanam juge d'instruction ñu ne leen te ngeen andi li ngeen waxoon teg amul benn preuve bu ñu génnee dossier ba mu jeex tàkk benn preuve amu ci boo xam ne nee nañu Ousmane Sonko def na lii waaye ñun ñi nga xam ne dañ ne complot la dañoo andi suñuy preuve mu ne fàng lan mooy suñu preuve nee nañu dossier bi teg naa ci loxo Omar Maham Diallo rapport gendarmerie nga xam ne rapport boobu àndina yeneen jombe ci réew mi ñu bari ci ñi Sénégal njort nañ ni alkaati yooyu nga xam ne réer nañu kenn ki ñu gis ko ñu rey ko keneen ki ba léegi gisuñu ko ñë ñëpp ñu bari njort nañ ni rapport bi bokk na ci li li li leen yóbbu ndax rapport bi li ci nekk dafa garaaw nga jël rapport bu mel noonu teg ko ci loxo Omar Maham Diallo rapport bi am signature ñu ko war a signé am cachet yi am lépp liñ ci war a nekk rapport bi wax ni Serigne basiru géey bokk na ci complot bi ndax ni ci bokkee tuddul Serigne Bassirou Gueye de mais rapport bu la ne PV d'enquête bi nga xam ne moom la di def dañ koo modifier ñu déglu ñi nga xam ne ñoo nekk ci dossier bi muy commandant Mbengue ak capitaine Touré ñoom ñëpp ñu ne Serigne Bassirou Gueye moo modifié PV bi moo leen sant ne leen changé leen lii moom capitaine Touré bañ ko moom Abdou Mbengue nangu ko. rapport boobu nga teg ko ci loxo euh, juge d'instruction est-ce que juge d'instruction rapport boobu rek doyoon na jar woon sax yeneen yëpp est-ce que juge d'instruction boobu waroon na renvoyer dossier bi mu jël ko teg ko fële ñu ñëwaat ci juge d'instruction bi ñu ne docteur bi nga xam ne moo consulter ki ne moom dañ koo siif docteur boobu ñëw taxaw ci kanamu juge bi ne ko man de ki kii ma ñiy wax bi ma ko jëlijee ba xool ko gisuma benn man nga màndarga boo leen dañ koo siif man bi mbir mi amee maître Gabisso moo ma woo ne ma demal jëlal ma ko ma xëy la lendemain defaguma sama PV Mamour Diallo ak Gabisso di ma woo yemul ci foofu de dafa dem ci huissier ñu constatel ko appel yi nga xam ne Mamour Diallo ak Gabisso yëpp ñu ngi ko doon woo dafa dem ci huissier huissier constaté ko mu jël audio boo xam ne Mamour Diallo moo ci wax nekko ko est-ce que mun nga génn guddi gi ci couvre-feu bi ñu gisee te Mamour Diallo nee na moom yéegul dossier bi lu dul fan yi la koy doog a la ciy doog a dugg yooyu yëpp mu boole clé USB yooyu yëpp jox ko juge ba pare ne juge bi boobu ba léegi ñu ngi may menacer de mort ñëw nañu sama kër dajj ko toj nañ sama oto toxu naa toxuwaat déposé naa plainte gendarmerie juge d'instruction bu am loolu est-ce que waroon na yóbbu dossier bi instruction est-ce que waroon na ko yóbbu procès juge d'instruction boo xam ne yor nga certificat médical boo xam ne nee la fii viol amu fi luy mandargaal ni jote am na fi sax feeñul ci certificat médical waxuma laa viol nga jël loolu teg fële ne loolu intéressé wu ma d'instruction boo xam ne ñi doon liggéey ci bërëb ba yépp déglu nga leen nu mu tuuti tuuti ñeent wala juróomi nit ñépp ne la ngay wax mu mënul ne yéeguma ko te maa ngi woon ci bërëb ba toog xanaa ku ñuy siif sax di nga weqatu wala di nga yuuxu wala nañ dégg nga jël loolu lépp teg fële ne ça ça ne m'intéresse pas juge boo xam ne capitaine Touré yi nga xam ne moo def enquête bi def na déposition am ne ko li ma mës a déclaré wax ko ci presse wax ko feneen confirmé naa ko j'assume nga jël loolu teg fële ne intéressé wu ma juge d'instruction boo xam ne ki ñuy wax MC Baye mbay ñas woolu nga ko mu ñëw bi mu ñëwee nga ne ko yow li nga wax foo ko teg mu génneel la clé USB boo xam ne ay audio moo ci nekk audio yooyu ki nga xam ne moo ne dañ koo siif moo ne siif bi musul am jote sax amu fi waaye ñoom Mamour Diallo moo ma dugal ci lii ba pare ne ma débrouiller rek ba andil ma toq ma niiw yaa xam foo koy jëlee juge d'instruction bu ñu jox loolu nga woo ki nga xam ne moo jiñaate de mu ñëw nga tegal ko audio bi ne ko ndax lii yaa ko wax avocat ma ngi toog mu ne waaw lii sama baat la man maa ko wax waaye dama doon foo ak moom dama ko doon làmbatu rek pour xool nga ne loolu doyu la yow juge d'instruction nga jël loolu teg fële juge d'instruction boo xam ne def nga li ñuy wax réquisition mooy dem nga Sonatel dem Tigo ñoom ñëpp nga jël numéro téléphone ñëpp nag muy ki jiiñaate muy ki ko doon dawalal ñoom ñëpp ñu def réquisition résultat bi mu ñëwee ba egsi suñu loxo avocat ñun ñoo ko traité résultat yi wane ni. la jiitu bës ba bës ba ci boppam ak ëllëg sa ñooñu ñëpp ñu ngi doon wowante ba guddi googu yëpp feeñ réquisition nga xam ne kenn mënu ko trafiqué nga am loolu yow juge d'instruction mu leer ni lii association de malfaiteurs la dañ koo comploté nga ne loolu doy la moom it daal di teg fële kon man jàpp naa ni maa xam Diallo dafa def lu ko neex wala liñ ko sant bettuma nag ci li ma wax li jiitu waaye bettuma it ci dama gëm ni lu bari def ko ci sagoom ndax ku dem foofu ci bureau fekk li fa nekk ci ay renseignements généraux fekk fa ci li fa nekk ci ñoo xam ne mën nañoo faat bakkanti ci lu dul dara ñu ne foofu soo demee ñu naan audition bureau bi nekk en face yépp ay renseignements généraux ñoo fay nekk ñay nekk foofu di yóbbu di andi te ñooñu tey ñoom ñooy instruire dossier bi ndax ñoom ñooy woo samay nit naan leen tell jour dina am telle chose am na ci benn alkaati boo xam ne Casamance sa dëkk Nappel la sant moo wax leen man damay wax nit ñi directement nekk ci mbir mi bokk na ci ñuy ñuy ñuy accompagner plaignante bi di ko di ko andi te di nekk tout temps bureau Omar Maham Diallo moom mooy woo samay nit une semaine avant ne ko tel jour dina am confrontation tel jour dina am telle activité. kooku mooy joxe léegi information yi kon moom instruire dossier bi man loolu laa gëm